Euh, situation yi bu bii ñu nekkee nii dañ ko yàgg dund yàgg ko xeex fi mu ne ñun dañoo dañoo dañoo hérité dossier bi dañoo dañoo dañoo hérité problème mu jàmm gën ñu fekkee ko nekk xale yu tuuti ñuy jaay doole suñu papa yi ak suñu yaay yi ak suñu dëkk bi nga xam ne suñu papa yi ak suñu yaay yi ñoo ko tracé mu nekk àll ñoo fi indi. Euh, euh, dispensaire ñoo fi indi lotissement euh, électricité ñoo fi indi ndox ñoo fi indi turu jàmm gën école ay tuuti mais depuis 62 ñu da am jënd suñu kër ah, a suñu papa yi jënd kër yi ñu toog vingt ans après ay 1982 83 ñu benn cabinet ak benn association des lébu xaw ma ñëw li ñu jaaye woon lébu yi ne jaayatuñu loolu guidé par un certain c'est son avocat, son parent, son chef de gang. Nous casser ventre bi parce qu'il était ministre de la justice. Nous cassons ventre bi Alors, nous avons 5 millions 500 yi nous verser 1 million 500 yi Alors, nous l'avons amélioré. bon donc li leen paa yi amee loon ñoom ñu ne xaalis bi ñu leen versé yëpp moomuñu ko ñoom du ñu organiser di di fay di fay indi beneen cabinet di di jaayaat suñu kër yi présentement kër goo fi gis euh, ñaari kër ñett yi ñett ñaari ñett ñaari kër ci ñett suñu titre foncier yi mi ngi ci ay loxo jàmbur ñëw nañ fi nag benn yoon euh, ci ci daaw di jéem a génne koo xam ne fii la juddooti il a plus de cinquante ans di génne waa këram ak bi moy mooy deuxième fois ki ñing ko top chaque année ñu ñew fi diko jox ay ay sommation